tey FRAPP France dégage daf leen a woowoon pour partager ak yéen ci loo xam ni ñëpp xam nañ ko ci muy wàllu koppar bi nga xam ni moom lañuy jëfandikoo ca balaay loolu ma présenté wu maa ngi tudd Aline Badara Mboup bokk ci secrétariat exécutif national bu FRAPP France dégage doon le délégué général adjoint ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre bi ñu nekk président ivoirien bi nga xam ni moom mooy Alassane Dramane Ouattara ci turu ñi nga xam ni mooy yeneeni ñooñam président yi seq UEMOA dafa taxaw ci wetu président France mi nga xam ni moom moo fi waxoon fan yële que ni dina jël ay réforme ci wàllu franc CFA taxaw ci kanamu askanu Afrique yépp ci dëndu Afrique yépp ni franc CFA dafay juge et ko remplacer ko loolu nag mu doon loo xam ni ay comportement la yoo xam ni xam nañu ni ñoom ñi nga xam ni ñoom ñooy dooleel li nga xam ni moom la ñuy wax France Afrique dafa nekk benn violation maanaam benn xaawi suñu àq ak yelleef ñu tuddee ko la souveraineté des États et des droits des peuples à disposer deux même ndax bu fekkee ni lu toll ni jël suñu xaalis changé ko ci beneen xaalis dafa nekk loo xam ni question de souveraineté la maanaam kàddu réew mi kàddu réew yi ak ñi nga xam ne ñooy citoyens yi daf ci am solo ndax ñooñu ñoom ñooy jëfandikoo xaalis boobu toujours nag dañuy dugal ci benn débat yaakaar ni mbirum utilisation xaalis ak CFA dafa doon débat économique ñun ñu ni leen déedéet débat boobu dafa doon débat de souveraineté dafa doon débat boo xam ni débat democratique la ndax ñoom pays européens yi bi ñuy def li nga xam ni moom mooy seen euro gis nañu am na ci ñoo xam ne dañoo def ay référendum waa la yàlla lu tax ñun Afrique tey benn président pays boo xam ni moom mooy Côte d'Ivoire moom mooy taxaw fële di ñuy yëgal que ni li nga xam ne suñu xaalis dañ koy changer ci beneen xaalis boo xam ni éco te éco boobu ñëpp xam nañu ni waa France daanaka ñoom ñoo nekk ci ginnaaw am na sax ñoo xam ni dañ ni éco boobu li nga xam ni moo doon écu benn mone boo xam ni dañ ko waroon utiliser en Europe te Fra euh, France nga xam ni ñoom ñoo ko indi woon moom lañ ñu indiwaat pour ñu utiliser ko te loolu doon lu doy waar ndax mone dafa nekk loo xam ni dafa war a nekk. symbole suñu histoire dafa war a nekk loo xam ni niñ ko waxee question de souveraineté la dafa war a nekk loo xam ni comme suñu drapeau national dafa war a doon suñu emblème ñu jël benn dogal boo xam ni koo xam ni ci ay pays yu bëri benn président taxaw fële ñu yéggu ko sax ñun ci benn rajo boo xam ni rajo française la que ñun dañoo war a soppi loolu loolu nag dañu yaakaar ni yabaate mënu ko weesu dañu yaakaar ni yaa yaafuus ak ñàkk fayda mënu ko weesu waaye loolu bettuñu ci ñi nga xam ni mooy suñu chef d'État yi nga xam ni fan yële dégg nañu ki nga xam ni moom mooy seen patron Macron convoqué woon na leen tout simplement ñuy wax ci yeneen i question sécuritaire loolu nag FRAPP yàgg na cee artu njëkk nañu defoon benn mémorandum benn lettre boo xam ni dañ ko jébbaloon président de la république ci mars 2018 di wax artu Macky Sall ni ko question monnaie daf ko war a jébbal askan bi mu dem assemblée nationale mais fan yi dégg nañu sax ci marathon budgétaire bi am na ay député yu laaj ay laaj ci yeneeni ministres yi ci wàllu monnaie boobu mais ba léegi indiwul ñu leen ci ay tontu FRAPP France Dégage defoon na fi aussi beneen conférence de presse mi ngi amoon le 16 juillet 2019 boobu aussi ñu ci artu di wax ni lii nga xam ni mooy ñëw maanaam éco bi mbubb franc CFA rek la ñu simmi solal ko éco loolu nag ñun ku ñu xam xam ñu ci taxawaay bu am solo boobu ndax suñu dooreelu kuréel muy FRAPP France dégage mi ngi doore woon ci benn campagne bu ñu tuddee woon pour la souveraineté monétaire France dégage mu amoon ci 21 novembre 2017 ñu jàppoon ci suñu ay ñooñ yu bëri ci commissariat central gisoon nañ fi aussi ci bi nga xam ni Kémi ba taaloon na fi li nga xam ni moo doon billet bi nga xam ni moo doon 5000 francs tey kii toog ci sama wet mu doon Bentaleb Sow bokk ci membre FRAPP France dégage dem na ci kaso chaque jour yéen a ngi dégg waa FRAPP France dégage ni ngi leen di jàpp ci question yu mel nii loolu nag du lenn lu dul wane tey que ni ñoom li nga xam ne tey maanaam ay réforme lañu du lu ñu ñu may du loo xam ni cadeau de Noël la dafa nekk loo xam ni suñu taxawaay la ak suñu Pastef ci xeex bi ba tax na nag ñoom ñu bëgg a utiliser loolu bëgg ñoo indil yenn réforme yoo xam ne c'est en surface simplement c'est-à-dire réforme ci kaw pour di def li nga xam ni moom lay yenn xale yi di wax ay calmant mais loolu je pense que ñun xam nañ ko comprendre nañ ko ndax bu fekkee ni France dafa ni dafay jugee fi nga xam ni moom mooy instance yi nga xam ni mooy instance su BCEAO yi dootu ci toog te moom nga xam ni ba mu fa daan nekk dafa amoon lu ñuy wax droit de veto maanaam bu nee déet état yëpp bu ñu boolee nee waaw déetam mooy sut suñu waaw bu ñu nee li nga xam ni moom mooy compte d'opération yi te nga xam ni réserve yi fa doon nekk à hauteur de cinquante pour cent moom da ciy dindi loxoom. te aussi ñuy wax ni ñoom réserve yooyu tey même bu ci dindee loxoom amoon na ay réserve yu ñu dencoon moom ci gafakaam parce que ñun dañoo bëgg réserve yooyu ñu delloosi ko loolu nag du cadeau suñu xeex la ak suñu Pastef waaye malgré loolu dañu gis ni buumu njaam gi nga xam ni moo ñu boole ñun ak waa France ba léegi dàkkul ndaxte ci booba am na li nga xam ni suñu monnaie maanaam ki nga xam ni moo koy garantir ba léegi France la li nga xam ni moom mooy parité bi nga xam ni fixe la par rapport ak euro kese je pense que loolu aussi dafa gën a dooleel bu mu njaam waaye aussi dafay dolli à que ñoom seen entreprise yi seen multinationales yi dañuy continuer di guux suñu alal di ñu gën a dugal ci biir ndool ñun ñi nga xam ni ñun ñun ñooy utiliser monnaie boobu. leneen li nga xam ni tey moom mooy euh, maintien de la France comme garantie financier loolu dafay wane ni question de souveraineté bi maanaam moom sa bopp gi ba léegi amul moo tax ñun ñu ni France gi dafa rek peinturaat franc CFA bi def ko éco moo tax suñu xeex tey lay gën a am Pastef suñu xeex tey lay gën a ñoŋ ñu xamal ki nga xam ni mooy Emmanuel Macron mi nga xam ni moom da naam jàppoon nañu ni moom dégg na li nga xam ni mooy ñi nekk ci dëkku Afrique yi ak ndaw Afrique yi ñi koy wax moom dafa mel ni message boobu jàpp ko ndax message boobu mu jàpp ni ñun bañeel bu ñu am ci waa France la déedéet. message bi ñu koy lancé mooy ñun dañoo bëgg a moom suñu bopp ci wàllu économie ci wàllu monnaie ak ci wàllu sécurité moo tax ñu ni leen ñoom nañu génn ci biti ci suñu xaalis ak li nga xam ni moom mooy li nga xam ni mooy suñu ay souveraineté militaire ci loolu France FRAPP France dégage mi ngi woo ñi nga xam ni ay nawleem lañu te feeñ ci xeex bi trop te nekk fi nga xam ni mooy ci dëkk UMOA yi te ñu xam leen ci seen Pastef ñu continuer taxaw tem ba nga xam ni li ñuy laaj mooy monnaie boo xam ni weccit woo xam ni ak koppar goo xam ni ñoo ko moomal suñu bopp ñoo ko géréel suñu bopp mu mën ñoo jariñ mën duggaat suñu askan loolu mën a doon li nga xam ni lu am la ndaxte am na ci ñoo xam ni ñàkk nañ ci seeni bakkan ñu doon ñoo xam ne ay figure lañu ñu ñu xam ci combat bi ñu leen di rendre hommage au passage ñenn ñi yéen a ngi dégg ko mel ni Kémi Séba tey ñi nga xam ni ñi ngi ko téye ki nga xam ni tey yu Marius Sagna doon koo xam ni tey ñëpp xam nañu Pastefam ci wàllu xeex boobu ñi ngi ko téye ci camp ak yeneen ñaari suñuy ñoñ ci boobu am na juróom-benn yoo xam ni bàyyi nañu leen loolu nag. du lenn lu dul xoqatal boo xam ni suñu Pastef la ak suñu taxawaay ci xeex bi ñuy laaj réew mi taxawaay bu mat sëkk ba nga xam ni Guy Marius Sagna ak ñett ñooñu nga xam ni ñaar ñooñu nga xam ni ñoo nekk camp ñu mën leen a bàyyi comme ñeneen ñi nga xam ni seeni moroom lañu tey ñuy doxi seen soxla ñun FRAPP France dégage ñi ngi woo syndicat yi di woo ouvrier yi di woo ñi nga xam ni mooy association yi travailleurs yi jigéen ñi étudiants yi élèves yi baykat yi nappkat yi ñi nga xam ni ñoom ñooy def élevage citoyen yi nga xam ni ñoo seq réew mi maanaam aji bëgg réew mi suñ ko mënee résumé ci dëkk bi yépp ci réew mi yépp ñu taxaw ba nga xam ni li nga xam ni mooy seen àq ak yelleef ñu jot ko dagg bu mu ndoxeel gi nga xam ni moom moo leen di dugal ci kàmbuk li nga xam ni mooy ndóol